salaamaaleykum Idrissa daa def Seck naka yitte yi naka coole yi mbaa ci jàmm bu baax naka njaboot gi waa Idi yow xaalis bi nga waxoon dang ñu koy jox ana mu foo ci toll kañ nga ñu koy jox la kañ s'il vous walla asib réew bi soxla nañ xaalis boobu ah man kat damaa waaru yow dang na fi woon xaalis bi dang kaa denc fu wóor sooy dem ba Ablaye Wade wàcc nga delloo ko Sénégalais yi waaye ñun boobu ba léegi ñu ngi xaar de xaalis hmm? bi nga waxoon ne danga koo dencal Sénégalais yi ah buñ demee bañ màgg ñun nga jox ñu suñu xaalis xaalis boobu doo ñu ko jox s'il vous plaît màgg nañ de moom te réew mi soxla na ko dëkk bi metti na trop yow it xaalis boobu ko jëlal ñu ko s'il vous plaît idi ah mbaa doo ko campagne idi xaalis bi ko campagne ah baax na ngi xaar rek de wax dëgg yàlla notre patience a a des limites xaalis boo xam ne boobu ba léegi nga ne yow idi dangaa jub dangaa bëgg ñu jox la réew mi nga amee ñu xaalis daan ne dama leen koo dencal ci lieu sûr buñ demee ba jëmmi jamono dégg ñu ko jox xaalis boobu génnal nga leeral nga ne jox nga ñu ko bu fekkee jox nañu ko te yëg ñu ko nga wax ki nga jox bu fekkee joxagoo ñu ko nga génnee ko jox ñu ko ñu dugal ko ci dund gi dund gi seet na torop wala asim dund gi seet na <laughs> s'il vous plaît yow it indi defalal te yàlla tax nga sàmmanteeg sa kàddu te nga xam ne réew ngay laaj de boo setul duñ la ko jox réew boo setul wecc duñ la ko jox te indi seetagoo de s'il vous plaît génnal nga def te yàlla tax nga delloo ñu suñu xaalis dégg nga waaw góor Seck <laughs> waay Idrissa Seck moo xoromu